Mendes يقضيها بالقلم أرسله الله إلى كل الورى مرتلا ذكرا عليم ينزيلا هدى لزيد تعمدني أكرم بذلك الكتاب في هدى فيه القطواب والجواب من ربنا ذي القدام هو الشفاء من كل داء لمن عليه اعتمد ومن أباه طريد سحسرتنا والندم وكل شاء الحادا فيه وآلم يجهيدا بتوات الأفراد مرابيه المنتقم وهو الذي من اهتدى بهديه نال هدى ويحتوي الفوز قيدا دع عدماتنا من لقامي وواكيدا ربي بما يسره الأسخان قد فجاه بجاه عبد الإيمان لله خلده أمني لرب كريم من لا شريك له وساري اليوم نورا ساتعا محمد صلوات الله في عبد عليه في حزبه kulli bi kala mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu fii ci dëkk bu tedd bi di Touba ci turu daayiratu Miftaahu Saada di fas yéene ñëw ànd ak mbokki taalibe yépp yi nga xamante ne ñoo seq Miftaahu Saada ci biir réew mi ak bitim réew ngir yeesal sunub taalibe jébbal sunub liggéey Cheikh Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool tam ànd ak ak wér. Euh, ni nu ko baaxoo defee rek euh, at mu nekk bu ñu dajalee addiya ji euh, tàggu mbokki taalibe yi nga xamante ne bi ñoom lañu seqal liggéey bi muy ci réew mi ak bitim réew ñu ñëw jébbale suñu liggéey yi yeesluwaat delluwaat ca daara ja ñaan ci barkeb Serigne Touba yàlla nañ ko yàgg a def noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa ginnaaw yàlla dogal ne kilifa yaa ngi nii teew incha allah bu nu ubbee rek dinañ daal di jox kilifa yi. nu joxe li nga xamante ni bi mooy seeni kàddu waaye nu feeñal suñu mbégte ci nii nga xamante ni lañ koy doxalee ndax ci oto bi maa ngi wax léegi ni leen euh, liggéey bi yàlla dogal na àddee ji ren toll na ci téeméeri junni nu xeeb ko lool waaye nag xeeb gi it ni ma ko waxee ci oto bi mooy sëriñ bi moom xàmmewut junneeg milliard boo fi andi woon milliard fekk ko ko andi fi lu ko ëpp waaye loolee amul solo li ci am solo mooy pas-pasab jóg gi ak liggéey bi ñaan yàlla yàlla na ko sëriñ bi nangu kon nag mboolem ñi ci tàbbal seen loxo ak ñi amoon yéene ñëpp noo ngi sant ñëpp di leen gërëm di ñaan ci barkeb sëriñ Touba liggéey bi yàlla na ko suñu boroom nangu yàlla nañ ci daje ngërëmal sëriñ bi tey mu néew mu bari yàlla bu nu ci gis suñu bopp kon noo ngi wàcc foofu suñu kàddu boo defee dinañ jox kàddu gi rek sëriñ gi laay bu paree jox kilifa yi noo ngi xam ne daal sant nañ ñëpp bu ko defee bu ñu paree euh, dem ci soxna yi bàjjen may mënatu caw mi nga xamante ne moo jiite soxna yi moom it mu feeñal ay kàddoom nu xam ne bi daa sant nañ ñëpp yàlla dogal na cant bi eh, ziar bi ren eh, kenn ci membre yi nga xamante ne ñoo féete fële ci bitim réew Serigne Saliou Ndione mi ngi nii yàlla dogal na ren mu fekk ziar bi Serigne Saliou ñu ngi lay ziar bu baax di ñaan yow it eh, taxawaay ak ci liggéey bi yàlla na ko sëriñ bi gën a barkeel. ndax yàlla dogal na maa ngi koy wax léegi Babacar Sarr ne Serigne Saliou mii xam naa ne du bëgg sax kuy tibb tudd léeg-léeg ak ak ak jëfam. waaye maa ngi fàttaliku ci jamono siyaare Serigne Saliou mu yëkkati fa lim bu takku joxe ko loolee lépp di feeñal ak bëggam te mosu cee teggi tànkam booba ak léegi kon nag Serigne ñu ngi ñaan ci kattanu Serigne bi yow yàlla dooli la kattan ndax xam nañ ne fonk nga daara ji lool lu ne jaar na fi waaye mosoo teggi sa tànk mosoo cee dellu ginnaaw du suñ jëmm yi moo tax waaye xam nañ ne sa bëgg ak liggéeyal Serigne Touba moo tax Serigne bi nag moo am ak fay ku ko liggéeyal yëg ko ku ko liggéeyal mu fay la ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. mbégte ak kontaante rek di sant mbooloo bi ñu àndal ñëpp ci turu Maton Sall di sant jëwriñ bi ñu àndal xanaa baaxam mooy li may wax rek daa baax di ñu jox kàddu ñuy wax rek waaye li waroon wax yëpp wax nañ ko ndax mënewu ñooy wax yaay at yee ñu indi sëñ Tuubaa yàlla na ko sëñ Tuubaa ful daf ko ay milliards bañ mën ko indi at bu ne suñ borom dafa ñu taw feex ñu fekkee at yu bëri mën a ko indi di ñor mooy liggéey bi ñuy liggéey sëñ Tuubaa mu tegu ci loo xam ne ñu loolu mooy ñitteel ngir mu ñaanal ñu ngir gëj koo mën loolu daal lañuy sàkk mu ñaanal ñu rek wasalaam jërëjëf. comme ni ko jëwriñ jiitu waxee rek lii moom am xel mu dal la ndax liggéey at li nga liggéey nga ne da nga koy ñëw jox ko Serigne Touba te ku ne xam ne Serigne Touba moom loo ko jox dana ko téye te bu ko téyee dina la ko yóbbu làqal fu yàgg àggul kon nag ñu ngi ñaan yàlla lu ñu mel ren rek bu déwee nañu mel lu ko ëpp daraja Serigne Touba daraja Maam Cheikh Ibrahima ñaan tamit sëriñ bi di ko dagaan di ko yalwaan li nga xamante moom lañ dëgmal di suñ cant bi nga xamante ni dañ koy def si ndigal sëriñ Saliou yàlla nañ ko fekke te tal ko te buñ ko fekkee yàlla nañ si sëriñ Saliou barke suñ mu tax a defal kawe suñ jot luñ si bëgg lu nañu def ko te yàlla nañu sëriñ bi nangu suñu taalibe te yàlla bu ñu bew yàlla bu ñu naagu yàlla nañu sëriñ bi sàmm suñu taalibe si barke suñ Tuubaa maam Cheikh Rahim Fall comme ni ko jëruñ ñu baax ñu waxee rek daanaka amatul dara luñ ci doole lu dul ak cant rek di wax ne lii rek mooy liggéey bi seeni dajale at yi ñoo jébbal ko sëriñ bi day cee ngërëmu sëriñ Touba gën góor góorgóorluwaat ci at yi ndax at yi rek mooy liggéey bi jëm ci sëriñ bi waaw di ci soññaat waa daahir daahir bi yépp di ñaanal suñuy waajur yu àndal suñ borom gën a yàggal seen taxawaay di ñaanal suñu waajur yi ko daan teew it te fekku leen fi suñ borom yeesal yërmande ci seen kaw bu ko defee kon dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin rek santaan mbooloo mi yëpp yëpp yëpp yëpp ci confiance bi ñu am ci ñun di gërëm suñu jëwriñ maraage bu baax a baax a baax ak mbooloo mi yëpp di rafetlu ànd bi ak taxawaay bi sant nañ bu baax a baax a baax di am mbégte lool ci teew bi ñu teew fii ci kanam ku tedd gi di sëñ Muntaxa Basiru ñëw jébal si ko liggéey bi ndax taalibe mu amul lu dul liggéeyal Sëriñ Tuubaa te lii cëram ak lii wàllam mooy saa su rek muy sax ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa te xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa rek moo fi nekk lépp luñ mun di am tamit saa su ne rek liggéey Sëriñ Tuubaa moom lañu bëgg te ci lañuy dox te jool la ñuy ñaan yàlla suñu borom ak Serigne Touba mu jàpp lañu ci baax di ñaan liggéey bi ñu fi indi nag yàlla ñu ko sëñ bi fulal defal ñu ko ay ngëneel yi ngëneel yu taw feexe te yàgg koo fekk yàgg koo teew yàgg koo bokk di ko liggéey ci barke Seexul Xadim barke Serigne Saliou ñu ngi xaare mbokki taal bi yëpp di jéggalu ñëpp di ñaan tànk yi ñu fi indi ci jàmm ak salaam yàlla nañ delluwaat ci jàmm ak salaam ci barke Seexul Xadim. du nag euh, di suñu jëwriñ di suñu doom di suñ xarit di suñ lépp di ko ñaanal yàlla suñu borom yéen bi yàlla na oyof waaye noonu lañ koy siyaaree suñu may bàjjen Maymuna Thiaw nga xamante ne tubarkàlla macha allah mooy suñu jëwriñ ju jigéen di ko ñaanal moom itam caw mu yàgg fi lool te ànd ak wér te nu yàgg ci ginnaawam nag lool macha allah di siyaar nag waa daayira Miftaawu Saada ñëpp di siyaar góor ñi di siyaar jigéen ñi di siyaar xale yi tubarkàlla macha allah di siyaar itam mag ñi. di wax ne ñu ngi santaat yàlla bu baax di julli ci yonente bu tedd bi bi nu yàlla bindee def ñu ñu nekk ay jullit mu jëlati nag sunu wasila mu defati ko seexul xaddim bàyyi ba sag baara ñun ñi ngi sant yàlla bu baax di liggéeyal nag sëriñ Touba macha allah ba liggéey bi yem ba ñu ànd ak sunu jëw jëwriñ ñëw indi ko ci sëñ Muntaxa mi nga xam ne mooy sunu seexul xaddim tey yàlla na fi yàgg lool te mu ànd ak wér nag te yàgg ci ginnaawam Moussa yu gestoo rek Mbàkke Balla Aysa mu nuy gis sama doom tey am nañ mbégte bu baax am kontante bu baax ci fii ñu dal ñu dalal nu fi nag ñu fas yéene jàkkaarloo ku tedd ki tey di wax ne siyaar bii ñu siyaare si yàlla bu mu nekk suñ mujjug siyaar yàlla dañ ko fi yàgg a ñun ñëpp ak jullit yëpp ak mbooloom yëpp te kenn bañ a manqué ci barke yonent bi ki ñëw ak ki ñëwut ñëpp nag yàlla na nu yàlla suñu borom boole yoolub siyaar bi. kontaan nañ bu baax di siyaar ñoom Gillaay Tubin ñoom ma tabaru Diop bàyyiwuñu kenn nag di siyaar ñoom Bouba Sarr ñoom maam Thierno ñu nu àndal daal góor yàlla yëpp ak soxna yëpp daal ñu ngi leen di siyaar te di leen ñaanal jàmm ak tawféex di ko ñaanal sama bopp te di ko sàkku ci mbooloo mi tam mbooloo mi di ma ko ñaanal sama doom jërëjëf kontaan nañ bu baax. amuk cant ci daayira bi lool sant leen bu baax góor ñi jigéen di waxit sëñ Muntaxa Mbàkke yal na fi yàgg te wér ak xalif général de Baye Fall noo ngi noo leen di bége di sant bu baax sëñ sëñ Mara ak mbooloo mi mu àndal ak daayira maam jaara góor ñi jigéen ñi noo ngi leen di sant leen gërëm noo ngi ñaan yàlla mi am pay yal na defal yal na leen defal fay di ñaan feebar bu fi nit indi yal na ko yàlla sekk ba mu set di ñaan itam wërsëg bi yokk mën gi jëm kanam daayira maam jaaranu di ko dox di ko dox bay raam yal na ko yàlla def ak biir ak biir le di ñaan sëñ Muntaxa Mbàkke yal nañ ko yàgg di siyaare te mu yàgg fi te biir dañ koy ñaan saa yu nu xëyee gudd gi fan wér gi yaram wërsëg mujj bu rafet yal nañ ko yàlla defal maa ngi nuyu ñëpp tey ziar ñëpp tey ziar sëñ Mountakha Mbacké te di ko ñaanal mu yàgg fi lool sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te ànd ak wér sëñ Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér tey ñaanal Mara ak ñi topp ci gannaawam ñëpp sunuy doom lañu góor ñi ñëpp laay ñaanal yàlla guddal fan yi wéral cër yi musal ñi ci cat ak seytaane musiba balaa yàlla bàyyi ñu fi ñu topp ci gannaaw seen gannaaw ba liggéey bi ñuy liggéey sëñ Touba yàlla nangul ñu ko tañ attan ko lépp luñ ci mën ñu ngi koy jéem te di ko def ñu mën ak ñu tële yëpp ñu ngi ñaan yàlla yàlla guddal fan yi wéral cër yi ak mboolem jigéen ñi ñëpp rek yal nañ fi yàlla bàyyi ziar naa ñëpp te ñaanal ñëpp gudd fan gu ànd ak wér بالعالي وبالفم أشكر ربي العظيم على كتابي الحكيم وفث فيه بعلم تفهم ذات صرفني كتاب si na mi di jàkkaarloo ak yéen ñu ngi leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah kon ñu fas yéene tàmbali liggéey bi ngeen jël seen i addiya ñu teg ci loxoy sëriñ Abdou Nakram moom sëriñ Abdou Latif mi ngeen xam ne mooy suñu jëwriñ ci liggéey bi ndigal loolee ngeen jëfe ko kon jëfe ngeen ndigalul kenn ku ci nekk fa nga nekkoon di saytu liggéey sëriñ Touba ba liggéey bi mag ngeen indi ko ci sëriñ bi waaye jëfe ngeen ndigal li nga xam ne moom la sëriñ bi ngeen dajale seen ak yéen teg ko ci loxo si yëpp la ko doon. Miftahul Sahada Serigne Djili mi ngi sëñ Jili ko ñu ngi nii ndeysaan waaw moom tamit ñëw na dafa ànd ak daayira boo xam ne dañoo bokk ci moom Serigne Maana bi moo ko jiite féete fële ca Ndakaaru mu waxoon bi ñu jëmbale si liggéey bi nañ ñëw Mbàkke ànd ak bokk liggéey bi jërëjëf mooy mooy ñu taal saala Serigne Maana mooy daayira bi ànd ak Serigne Jili ko moom tamit jëmbale liggéey bokk taalibe yi sëriñ bi dafa sëriñ bi nañ toog ci taxawaay ngeen am ak dajale seen addiya ko bu bi mag ngeen na ngeen xam ne na xolam na xelam na ngeen xam ne fu ngeen mën a ne sëriñ bi rek ngeen fa nekkal moom mi ngi leen di bàyyi xel saa su ne di leen wéttalikoo fas yéenee fentale ay laxasaayam ànd koo yéen ba faw di leen ñaanal suñ borom dimbaluñ ba daje tawfeex sëñ Tuubaa seen lépp gën di yomb seen lépp gën di yëwén seen lépp gën di barkeel kon na ñëpp tàllal seen loxo ba subaa jàmm incha allah na ñëpp tàllal seen loxo waxtaanaa xam day soogaak si asan so bi taxal amin jërë ngeen jëf bismillah